أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci tarbiyatul awlaad ala diini wal xuluqil karim soññ bi islam soññe ci yar njaboot gi tàggat leen ci diine ak nampatal leen ay jikko yu tedd yan waroy seen gannaaw ci ñoom lañu yaakaar ëllëg yëlimaan yi ñu topp seen gannaaw ci julli ji ëllëg ñoom lañu yaakaar ñay jàngale alquran ak di yeete ñoom lañu yaakaar ëllëg ci nekk attekat yu mag yi ak njiitu réew yi ak fajkat yi kon njaboot googu su waajur yi taxawee ci tàgg leen ci diine ak jikko yu tedd incha allah suñu màggee nation bi màgg am doole am taxawaay am tur ak sant suñu sàgganee seen yar amuñu jikko yu amuñu jikko yu baax ñooñu suñu màggee ñooy màbb xeet wi te moo koy delloo gannaaw wal iyaadu billah nañu leen delloo xel yi ci yàlla ak tënku ci yaru alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi dafa ni ci alquran ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran wa quuduha annaasu walxijaara alayha malaa'ikatun gilaadun shidaad laa yacsuuna allaha ma amarahum wa yafcaluuna ma yumaruun sadaqa allahu alazim suma borom ne yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane te gëm wéetaayu bàmmeel fegal leen seen bopp ak seeni soxna ak seeni doom safara jahannama yàlla ump jullit safara soosee nga xam ni bisu pénc ma matt yenn koy xambe ay nit lañuy doon ak lañu daan jaamu i malaakaa nga fa yoo xamante yu raglu lañu te am doole te duñu mooy ndigalu yàlla benn yoon lu mu leen sant ci mbugal noonu lañu koy defee yal na loolu ump ñu ump bépp jullit bi aaye bi la wàccee umar ibnul xataab radiyallahu anhu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah naqiya anfusana fa kayfa lana bi ahlina ni ko yonent bu tedd bi ñun dey aaye bi tiital nañu ñun nag mën nañu fexe ba muccal suñu bopp mais njaboot gee ñu jaaxal fan la ñu jaar ba mucc sallallahu alayhi wasallam tontu ko ni ko tanhawnahunna amma nahaakum allahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakum allahu bihi fa yakunu dhalika wiqaayatan baynahunna wa bayna an-naar mu ni ko na ngeen leen tere leen yàlla tere te ngeen leen digal leen yàlla digal su ngeen ko defee dana dox seen digganteeg dugg safara est-ce que wayu jur yëpp ñoo ngi tere seen njaboot leen yàlla tere est-ce que wayu jur yëpp ñoo ngi sant seen njaboot li yàlla santaane fii la question bi nekk problème mu société bi yëpp tey ci l'islam lii la kenn ku ci nekk am na benn responsabilité sa digganteeg sa njaboot bu la yàlla sant wante am na ay manquement bare na ay manquement Seydina Ali radiyallahu anhu wax ni teg ca ni allimu anfusakum wa ahlikum alxayra wa addibuhum ne na ngeen jàngal seeni soxna ak seeni doom yiw te yiw mooy jàngaleen yaru diine tabaarakallahu ñu xamee seen ay farata xamee seen ay sunna xamee seen ay ngëneel xamee seen ay wareef ak lu ñu leen tere yi mooy problème bi wayu yu war nga ñëw sa kër dajale sa soxna ñu tari saar xam ndax suñuy julli danañu jàng saar yu sell yu set ndax mën nañ ko suñu mënee nga kontaan nga bégal leen suñu mënulee yow soo tanee nga jàngal leen ba nga wut ku leen jàngal mu yokk seen aliwa ndax daa ñëw sa kër sa njaboot jëm jàngi ba dellu si ku ci nekk ku dem école dellu si ñu xool sa carnet signé ko seet sa note lu ko jógee alquran kenn xamul sa saar kenn xamul sa kaye kenn xamul ndax fer nga ijj ndax tari nga solos la alquran da ngaa dem di dellu si rek ba xëy suba xëy suba bàyyi alquran la hawla wala quwwata illa billah mais war nga taxaw sa kër réglementé ndax xale yi jàng nañ seen alluwa ndax am nañu comportement bu rafet ci alquran ja ndax am nañu comportement bu rafet ci daara ci école ba ak ci mbedd mi ak seen ay àndandoo loolu wayu jur war na ko contrôler war nga laaj say njaboot ndax xam nañu ponku lislaam arkaanul islaam kooku dafa waroon nekk malabu sibyaan xale yi di ko fawantoo ku nekk naan ponku lislaam nangam nangam nangam ba mu di juróom mais daa laaj nit ponku lislaam ba ci ay mag luy ponku lislaam seen xel di hésité te loolu dafa war nekk lu automatique nga laaj sa jaboot ndax xam nañu xulafaa u rashiduna mën na la wax kenn di hésité di xool seen xel te pourtant de sooy laajoon léegi acteur u cinéma wala footballeur wala mbër ñu jox la tabaarakallahu palmarèsam yépp fa mu juddoo yaayam papaam carrière am yépp te loolu amul la njariñ ci àdduna amul la njariñ ci àdduna delloo xel yi tabaar si àllaaxira fa tabaarakallahu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam rahima allahu rajulan qaala ya ahlah salaatakum صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعك معهم في الجنة نين يان يالا يرم وي جور بو خامني توغنا بامو ياغ خلام يد كو مو داجال كير جي سخنا سي كاي توك خالي يي كاي لين توك لاج لين سي جولي دا خام نانيو بونكو جولي دا خام نانيو فراتاي ndax su seen julli yàqoo mën nañ ko réglementer loolu doy na doy na yaru kër te doy na ci instaurer communication yow borom kër gi sa diggante ak sa soxna ak say doom rek jotaay boobu rek añ ba noppi mbaa reer ba noppi xale yi nafar ponk julli mais su la wëree ne yow xamuloo ko doo ko def la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim dajale sa njaboot weeru koor chartu koor yéen soxna si yéen njaboot gi xale bu nekk wax charte koor yi tax koor di wér yee yàqu koor yi ñu siib ak yi ñu daganal tabaarakallahu nafar boobu ci biir kër ana daan moo ko gën a neex sa njaboot liggéey ba toll ci situation am na wërsëg mais war nga xam ndax mi ngi génn azaka ndax am na lu mu denc war génn azaka wala déet ndax mi ngi génn sarax ndax mi ngi def silatu rahim ndax mi ngi jokk i mbokkam tabaarakallahu war nga nemmeeku loolu ndax yow la ko yàlla dénk laaj sa njaboot ndax am na lu muy jël di ko jox miskin ñamu tane ngir mu am butu yërmande ak butu cofeel bañ naagu bañ yëg boppam di génne sarax xam ni sarax mooy barkeel sa alal mooy barkeel sa dund wax sa doom yow am nga chance am bàyyi ak am bàyyi ak yaay yuy dund kii amul bàyyi amul yaay wala amul wala tabarkaal am na ko dem si ñoom ñaar ndax daa ko yërëm ndax doo ko xool di ko am bët boo koy xool di ko xeeb ndax daa ko yërëm xam ni yàlla mi yóbbu ay waajuram bàyyi la fii tabaarakallahu sañ na lu nekk nga bàyyi xel ci loolu sa dëkkandoo ngeen bokk étage bokk immeuble taq buntu kër ndax daa ngeen nuyoonte baa doo ko lor baa doo lor doomam baa doo jël sa mbari teg sa buntu kër dëkkandoo mais yii le mooy responsabilité parentale képp kuy waajur bu góor mbaa bu jigéen ameel nga sa njaboot ba balu ñuy génn sa loxo di sëyi tabaarakallahu war nga am responsabilité seen seen biir di toppatoo yii léegi yàlla sant la est-ce que def nañu ko mbokk yi est-ce que xam nga lu xew léegi télévision mooy yar kër yi ak internet wayjur yu bari démissionné nañu fa ñu waree toog seen njaboot tëju nañu seen néeg néeg mbaa soxna si wax na la ba nga dem ca mbedd ma grand place xale yi kon kan moo leen di yar télévision bi internet ak mbedd mi du ma ni dafa bon de mais lu bare baaxu ci lu bare baaxu ci tabaarakallahu yii de ku ko topp yàgg ci nekk ci ci jungle bi yéen a yem képp société bi tey macha allahu taala yan yàlla dogal sutura bés boo xëyee li nga dégg ci express ci presse bi mooy jigéen bu ñu siif mooy nit ku rey moroom boom ña leen di siif ak ña leen di boom soo leen toppee ba ci biir mooy amuñu éducation de base mooy dara nekk fa ay mala la ñuy dem rek xamuñu diine xamuñu ngor xamuñu lu yàlla santaane xamuñu lu yàlla tere wal iyaazu billahi te boobu responsabilité dafa delluwaat ci wajur yeneen weñ yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yalqa rajul rabbahu bi dambin aadam min jahalati ahli baytihi nee na benn du ñu bis penc ma dajeeg yàlla indaale bakkaar bu rëy ba dab réeral sa njaboot am njaboot mënuñu alquran xamuñu ponk julli xamuñu lislaam xamuñu aqu wayjur xamuñu aqu dëkkandoo la xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim te loolu kat mi ngi bëgg am ci adduna bi xale yi ñoo ñu bare ñoo ngi màgg amatuñu repère amuñu référence royuñu ci kenn xoolal tey jile modd modd li naan laa modd modd colku mais colku yi am léegi ku nekk mi ngi laaj lii fan la jóge colku yu amul benn kersa góor bañ kaa xam dafa daan sol tubéy takk ko mais léegi modd dafa laa yóbbu ci sol tubéy wàcce ko mais lii ku ko topp tubéy di wàcc xanaa kon dara dafa desati jigéen dafa daan sol yére muur ay cëram soo muccatul yow jigéen bala ñu lay jox ni est-ce que am nga taar nga def yaramu neen ca na mu gën a ñàkke kersa sol tubéy yu nu faqat yu nu xotti tubéy yi léegi dañ kaa xotti ba mu xottee ko sa cër di feeñ ñu ne yow da nga nekk à la mode nga gis góor yoo xamante ni dañoo sol yëre yu racc racc racc mu soo su jotee sa cër ngi feeñ la hawla wala quwwata illa billahi góor ñaa ngi solu comme ay jigéen góor ñaa ngi solu comme ay jigéen yire xeetu modd su fekkee biir kër gi kilifaa ngi fi kilifa gu mat kilifa dañu ne ee sa yére yii du dugg sama biir kër gii loolu mooy kilifa tabaarakallahu mais xale yaa ngi def lu leen neex biir kër yow boroom kër gi war ngay tëdd sa lal war nga xam sa njaboot fu ñu toll mais xamoo sa doom bu jigéen fu mu fanaan xamoo kan moo fanaan sa biir kër la hawla wala quwwata illa billahi xale daf leen ñu romb la rek kii ñoo bokk classe dañu am groupe de travail mais na nga am wow res kilifa toll na ko duggal seen biir néeg ba xam la fay xew mais kenn du bàyyi góor ak jigéen ñoo réviser di réviser ay leçon ba xaaju guddi nga dem tëddi bàyyi leen mais adduna tukki moo tax balaa weer ñaari weer nga xëy ni laa xaw tañu sama doom mais yaa ko teg sa bopp mais nit ku nekk soxna yi boroom kër yi bala ngeen tëdd seen lal tëj leen seen buntu kër ubbi leen néegu xale yu jigéen ñi ak néegu xale yu góor ñi xam ñan lañu nekkal ku ca warul bokk ngeen ko eh heure tëdd jot dama ñibbi seen kër mais dem tëddi bàyyi sa njaboot gu jigéen xamoo fu ñu fanaan bés bu ne nga dégg sul naqati ak dikk si gis nañu leen delloo xel yi ci yàlla yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kullukum raain yéen ñëpp ay sàmm ngeen te kenn ku ci nekk ëllëg danañ laaj nagoon sàmmee sa njaboot yow borom kër gi sàmm nga ci soxna si yéen ñaar sàmm ngeen ci seen doom bu góor bu jigéen yow sang bi sàmm nga ci ki lay liggéeyal tabaarakallahu yow kii liggéeyal sa patron sàmm nga ci alalam kenn ku ci nekk ëllëg danañu laaj sa responsabilité fan nga mujjee la nga amee woon yan nañu yàlla may su boobaa ñu am tontu yu rafet yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam la an tuaddiba waladak xayrun lak an tatasaddaqa bi saain nee na nga yar sa njaboot inculquer que les bonnes valeurs yi nga xamante ne am na kersa am na jom am na dignité am na lu mu ragal am na lu muy daw am na lu muy rus mais ku rusatul dara amatoo dignité xamatoo luy ngor mais kooku yàgg mala yéen a yam nee na nga jël àndaaru wurus nga saraxe ko yar sa njaboot moo ko ëpp doole andaaru wurus day dem rek ñun la jërëjëf mais yar sa njaboot mooy yar société bi ndax su génnee li mu nekk ci biir këram moom lay indi ci mbedd mi fekkee biir kër gi dara baaxu fa mbedd mi dara du fa baax wala iyaazu billahi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ba tey ma naxala walidun waladahu min nuxlin afdal min adabin xasanin nee na benn wayu jur mayul doomam kado bu rëy bu màgg bu rafet bay dab yar ka yar bu rafet sa doom am examen nga digal ko oto digal ko moto naa la yóbbu France naa la yóbbu vacances yii la yëpp deex na mais amul benn mucc mais tabaarakallaahu yar ka yar boo xamante ni su génnee dem France mbaa mu dem Amérique daañu ni kii doomu Sénégal la kii doomu l'islam la waa Sénégal daal ñu am valeur lañu loolu yaakaar naa ni moo ëpp njariñ yi nga xamante ni poñetu àdduna kese la ba tey mu ni sala alayhi wa sallam rahima allahu walidan aana waladahu ala birrihi nee na yan na yàlla yërëm wéy jur boo xam ni dimbali na doomam ci mu teral ko kenn du am sa doom di ko rëbb tey bare na njaboot goo xamante ni njaboot gu toskare lañu ak waa jur moo leen dal lammiñ balaa la am nga sa doom na sikk lu mu mënti mel mais ñaanal ko yedd ka mu dellu si moo gën nga rëbb ko xas ko yàlla nga alku yow rëcc naa lu ma la jure woon xale bi génn si mbedd mi lammiñ dal ko mu daal di yàqu fekk yow yaa jur yaa ko teg mais yar sa doom récupérer ko tabaarakallahu ba mu mën la jariñ ëllëg moo ëpp njariñ di ko def mbalit mu yàqu ba tey moom sallallahu alayhi wa sallam wax na ni am na ku ñëw ci moom ni ko yaa rasulallah man abarru man kan laa war a teral mu ni ko teralal sa waajur mu ni ko man dey samay waajur dem nañu mu ni ko teralal sa doom si nga boobu ni mu foore danañu wax doom mu teral waajuram kii dafa ñëw mu ni ko sa waajur dem nañu mu ni ko am nga doom mu ni ko waaw mu ni ko teralal sa doom ni nga amee ak sa diggante ak sa waajur noonu nga amee ak sa diggante ak sa doom te kullama te diinu tuddaanu nit loo bëgg sa doom teral la ko da nga koy leble soo ko lebalee mbaax lebal ko teraanga lebal yaayam teraanga yërëm way juróom bu jigéen yërëm yaayam tabaarakallahu jàngal ko yar ko su màggee teral la insha allahu taala mais doom joo xamante ni da nga koy dàq di ko génne di ko rëbb di dóor yaayam di ko xañ lekk ak naan di ko ñoñontal bis su màggee tabaarakallahu day am esprit de vengeance day fayu si waa juróom su ko defee xale bi gaañu fekk yaa ko gaañu mbokk yan nañu yàlla xiir ci boppam ak yar sunu njaboot ci lislaam yàlla sàmmal ñu leen aaral ñu leen te yàlla bu yàlla tas yaakaar ci njaboot gi bi xurmati alquran alkarim allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan wala matrudan wala maxruman biraxmatika ya arxama arraximin
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulamaa u saalixuuna yi di ko naafilaa ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh